xam ne lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn kilo ci yamba la ñu daal di teg loxo ci benn fan dañ ci ànd ak Alassane Balde mu daal di nekk beneen jéego bi nga xamante ni ñii di waa douane teg nañ ko jëm ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex lii di trafic chanvre indien ci réew mi subdivision douane bu Fatick nag daal di teg loxo lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay kilo ñeel wàllu chanvre indien nga xamante ni mooy ca département bu Foundiougne lu ni mel nag ci diirub ñaari fan gannaaw bi nga xam nag tàmbal nañu opération bu am solo ca diwaanu Fatala foofee nag douane daal di fay teg lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay kilogramme gannaaw ay opération yu ñu fay daal di amal beneen opération yi ñu amal mu di brigade maritime ba nekk ci Toubacouta ñoom ñu teg loxo lu toll ci ñaari téeméer ak fukk kilogramme ñeel chanvre indien loolee ñoo dooleeku si ci jéego yi nga xamante ni douane def na ko ca Ziguinchor Kaolack ak Mbour foofu it ñu teg fa loxo ay quantité yu am solo jëm ci boobee xeetu sinébar ak jéego yi nga xamante ni def nañ ko ci weer bi di firnde rek taxawaayu duwaan jëm nag ci xeex li nga xamante ni mooy jënd ak njaayum drogue waaye it ak yeneen xeetu banditisme lu jëm ci wàllu trafic woto ak ñoomin seen donte ba nigi nag ñoom ñi ngi def seen seen pexe ngir wéyal seeni activité ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew wala si biir réew da ngeen di a jot moo vidéo boo xam ne dugal nañ ngir mën xam li nga